في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر lii mbégte la ci ñun fierté la ci ñun grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Khadim ndax ñun dëkkuñu fi astafurlah ci maanam waxin wi maanaam juddoowuñu fii nii mais sëriñ bi moo nu baaxee ñu ñibbi si Touba dëkkal ko fas yéenee nag nekk Touba di fi def li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg waaw ba tax na lii ñu fi am lépp sëriñ bi moom moo tax baaxe nañu ci mbaaxam ñu dëkk tuuba nekk fi di dóor waar ba suñu borom dogal ñu am daara fii nii bi ñu amee daara tamit teewul nekk nañ ci koñ bi di ko jaayante di def ak jaam ñi maanaam anam bu rafet ba suñu boroom dogal lii lépp nii loolu moo waral tey sa xëy na yéen tamit ngeen bokk ci maanaam yi sëriñ bi ak ci seen waar ba màggal si ñëw fekk ñu ci ëtt bii nii kon lii ñu dañ koy rafetlu te di ci maanaam sant bu baax màggal gi nag moom dafa doon loo xam ne ñun moom lañu am lépp loo xam ni def maanaam sonn nañ ko ci wala maanaam def nañ ko ci maanaam bëgg nañ wala am nañu yéenee def ci lu ëpp doole loolu noonu te ñu ngi koy ñaan sëriñ bi te saa bu ñu ko joxe te mi ngi ñu koy jox sax te dañ ko koy delloowaat moom waaw amu lu ñu amuñu lu ñuy ragal ci li nekk ndax ñun li ñu nekk xam nañ ko te gëm nañ ko métier mi ñu nekk tamit métier mu doy waar la ndax dafa bëri ay affaires yu ci nekk mais mbir bu la jaralee maanaam da ngay xam ne da laa jaral ndax ñun ci lañ yore suñu lépp waaw nekkuñu nag ñoo xam ne xam nga dañuy làmbatu wala dañuy lii ñun li ñuy def dañ ko gérer parce que dañuy dem feneen ak feneen ci Sénégal xam nga dafa yëngatu ci lu mel nii loolu dañ koy sante sëriñ bi. non waxuma la màggal gi mais avant màggal gi ñun dañoo gis suñu bopp ci màggal gi ndax màggal Touba waxuma la maanaam ñi nekk Touba rek mais ñi dëkk ci àll bi sax di ñëw maam ñoom li ñuy gis maam ñoom li ñuy gañe ci màggal gi sax ñoom duñ ko wax kon ñun ñi dëkk tuubaa ñun li ñuy am ci màggal gi ñun làmmiñ mënu koo tudd mais lépp lu mu ci mën a doon ñun dañ koy jëlaat dellowaat ko sëriñ bi ndax sëñ bi moo woote màggal gi te mu woote woote màggal dane sant leen ma sama boroom ci wàllum bernde ak ay xéewal ak yaatal gan ñi kon ñun ci loolu la ñuy dox màggal gi avant màggal gi ñu ngi gis suñu bopp màggal gi dafa ñëw maam gën koo yokk mais loolu dañ koy delloo sëriñ bi defal ko ci biir ganam ñi nga xam ne maam dañuy jóge ci biir ñëw ci màggal bi loolu tamit ba tey mën naa ne jaayante la ndax li tax jaayante la xam nga man sama métier man maa ko jàng mais moomatuma ko ndax ñi ma ko seexal moo tax moomatuma ko ndax su ma toogoon sama kër fi mu nekk nii client bi woo ma ne ma damaa am bagage bu boo xam ne damaa bëgg nga defaral ma ko man aw ma droit bañ kon damay jóg ñëw maanaam defaral ko bagage boobu noonu kon loolu sacrifié la non ñun moom bu magal Tuubaa jotee amuñu heure amuñu choix fi mu nekk nii ñun buñ bu ñëwee suba la màggal ci guddi gi la wala ci fajar gi ci wala boog ci jour màggal ci fajar gi boog man laa fiy jóge tëj sama atelier dem ñibbi te amna naa ay gan man moom foofu laa nekk tant que pare wu ma du ma wàcc waaw loolu yëpp déggoo ma maanaam loolu gi moo ëmb. loolu yëpp maanaam màggal gi la parce que lii nii ñuy def maanaam am na ñeneen ñu koy def ci biti te màggal gi moo waral ñu koy def mais bu dul màggal fi mu nekk nii fii ñun duñ fi maanaam fu 18 heures jotee ñu wàcc. waaw xam nga sëñ bi moo yaatu sëriñ Touba la kenn xamul kan la. sëriñ bee rek sëriñ bee ni toll fii da nga fee yéex a ñëw waaye li nga fi fekkoon ci bagage ëpp na te dama ciy profité waale di ko waxaale sama mbokki Touba liggéeyub Touba ci diggante vernis ak peinture. kenn du ko mun koo liggéey ci 2 jours 3 jours 4 jours loolu nako ko menuisier bàyyi xel bon leneen li ci dess moy di sant serigne bi bu baax nak lepp moma li lepp moma bo gisé sunu mbir ni ñu ko commencé nun lu mat fukki fan ak juroom a ngi nii amul ku ci wacc ci ñun te lepp liggéey yëpp touba ngir magal gi rek la bâtiment yeeg meuble yeeg non la fa démé fep non la yengo Touba ni tollu non la borom magal gi tollu mbir mi ni rek la demé di len sant di len gërem sama rak joju lolum wax nak nonu rek la demé allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa wa safar salatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar هما هلا هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبس والسفر